ci jotaay bi euh, di addu rekk ci mbirum opposant bi ñuy wax Bougane Gueye Dany xames na ni teg nañ ko loxo fële ca Tamba ci joote goo xam ne amoon na ko ak gendarme yi laata mars 2024 yow ak sa njaboot ci wàllu politik daan ngeen naxarlu yi mel ba jàpp ni sax jëf yooye dëppoowul woon ak réew moo xam ne tegu na ci démocratie wala ci république bu normal laaj bi mooy ndax mbirum Bougane Gueye dani jàpp nga ni deltu ginnaaw la ci wàllu démocratie ci sa ndorteelu magistère ci boppu réew mi jërëjëf jërëjëf ci sama prestation de serment bi ma doon waat engagement bi ma jël ci sama discours moy bu soobee yalla sumay joxe la ngay ci réew mi ñu gëm-gëmal ko ci bi may dem ak ci ba may egsi Sénégalais bu ne dina mëna a teg loxoom ci lu leer ne avancement amna ci démocratie Sénégal li xew Bakel mën naa leen wax gannaaw njëkk leen ko yëg ndax dañ may rendre compte automatiquement maa ngi yéen ci yem dafa am loo xamante ne nekkul ci sama loxo mooy sama kaaraange dafa am ñoo xamante ne seen responsabilité la am na loo xamante ne seen cër googu mënuma leen ko deflu ndax kon bu ci défaillance amee peuple sénégalais bi dina leen ci ngañ fii Dakar chaque jour ma génn fi bu demoon ba saa yu may génn ku ñu ne taxawal ba président jàll nga ne président day doxi soxlaam damay doxi sama soxla kon man mii askan wi yónni di ma xaar te yàkkamti ma dinaa tardé te sama responsabilité moo ëpp ci réew mi kon taxawal xaar président génn ci foo xamante ne am na déjà jafe-jafe déplacement ndax inondation la nga bëgg dem seeti jay sinistré yoo xamante ne maa ngi doon dem ci boor boobu kuñ ko wax wala dëgg yàlla war nga mën a xaarandi tuuti te maye loolu ba ñu dem lenn rek ma metti mooy dem naa gis naa condition yi nga xamante ne ci la ñu nekk ci région Kédougou ak Tambacounda di liggéey muy force de l'ordre muy armée bi muy askan wi jafe-jafe yu mu nekk waaye muy tamit administration territoriale ba mu tax acteur politique yi may doon woo nañu fàttaliku ne que dañu am responsabilité boo xamante ne exemplarité la war a nekk ci respecte charte yoo xamante ne buñ ci tonkulee jéeye mën na am musiba mën na am ku ne xam na fu président dem dëkk ji dina am ay mbedd yu ñu baare waaw bu ñu baaree ay mbedd am ndox moo xamante ne kenn mënatul doxee nu mu nu mu la neexee président nekk fa ay convois yu gudd dama ko yàlla baal ndax autorité régionale yépp dañuy dañuy génn muy préfet muy sous préfet topp sama ganaaw ak ñeneen ñi ngay ñëw bëgg a dugg ak convoi bu gudd bu ñu la nee xaaral ba président génn li nga war a nangu la maintenant yoon a ngi def liggéeyam man ku ma andil kaamil ci saa su ne naa la mën a waatal ne que man du ma gàllankoor yoon ndax loolu laa waat ci kanamu Sénégal yi saa ñu ma interpellé jox ma information que dara xew na ci wàllu yoon benn attitude laay am def leen seen liggéey donc ci loolu laa ci mën a yem en attendant présomption d'innocence la am yoon dina def liggéeyam yaakaar naa ne bu dee moom liñ koy jiiñ amul yoon dina ko bàyyi nu mu ko bàyyee woon bu mu ko woowee te bàyyi ko bu defee nag yoon mooy wax na def na mooy xool tamit lan lay teg ci kawam waaye man ci sama bopp li ma koy ñaanal mooy ay jafe-jafem gaaw a jeex ba mu delluwaat ci njabootam. merci beaucoup monsieur le président kon ñu jox euh, kàddu gi ki nga xam ne moo di Issa di wax ci turu Walfadjri. voilà ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di la nuyu bu baax président de la république du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay sama laaj dama koy jomale ci li nga xam sank yang koy wax muy ay kàddu yu ñagas yoo xam dañ koy faral di dégg ba ci sax xeyna lo loo xam mën na indi ay jéye ci réew mi ngay évoquer réseaux sociaux ñu am lo xam gis nañ ko ces dernières 48 heures muy ko xam ne da nga ko nommé bi nga ko nommé ñu toog tuuti gis ci réseaux sociaux yi ay nit di ñaawlu nomination bi nga xam ne moom nga ko nomee mu di PCA bu euh, SNHLM nit ñooñu après ñenn ñi di ko minimiser mais dafa dem ba law ba ci ñi nga xam ne xëy na ràññee nañ leen lool ci biir parti bii di Pastef te nga bokk ci démissionné woon ci sa secretariat général bi nga xam ne yaa ko jiite woon sànq yaa ngi koy souligner est Euh, Samba Ndiaye bi nga xam mom lañ nommé da ngeen ko fas yéene ndax dégg nañ sank premier ministre Ousmane Sonko mu bind ab bataxal am lu mu wax né des mesures correctives seront apportées mu né loolu lan lay tekki ci mesures correctives yooyu bu ngeen ko téggé ci poste bi mu est-ce que du wone que ni président de la république dañ koy def pression pour que su fekkante fekkente ne dafa jël ay dogal jërëjëf. commentaire mom naa la puisque moom annoncé na ay mesures correctives xam naa ne boo bëggee xam mesures correctives yi muy nekk moom lañu koy interpellé ndax propos la waaye li ma bëgg a wax mooy dama nangul ñuy wax que ñu bokk ak man langue wala ñu bokk ci sax kuje gi ñu bañ a d'accord ak man ci li nga xamante ne moom lay teg comme ay acte bés bu ne te ñu am droit tamit wax ko que mu nekk opposition comme on est que ça, mes propres partisans, nous avons le droit j'ai un désaccord avec les gens qui ont été